ah Modou yaa ñu def noonu tey yow bàyyi naa la son yi bu. Adja tey nag eh, tey nga ànd ak eh, ki nga xam ne rek moom moo di Abou Jandal. Mhm. Ah, tey lan nga doon indil ci victime du net. voilà victime du net. bu ma yóbbante. waaw pour Cheikh Bara. Ah. am na suba férié la te àjjuma ga nit ñi dañ fa daan bari di ko seeti. waa mais yaakaar naa suba visite du am. ah d' accord comme férié la waaw. pour xam naa loolu ñi bu ñëwee nañ ko leeralaale sax. non mun na ko bañ a xam sax dama ci doog a jot. waaw ah. xanaa yaa yor yor ma communication bi ah. <laughs> damay gëstu ci moom rek. <laughs> kon mi ngi noonu li Omar wax message bi jàll na kon yéen ñi nga xam ni suba du ngeen dem fenn. Mhm. Abu sa vidéo lañ njëkk gis ci internet bi muy wëndeelu dégg naa nag yàkkamtee la ko tax a def. ndax ba nga ko defee sëriñ daara bi lay tontu dégg naa mu dugal in jaakum faasixun bi nabain fa tabayanu mhm. lu tax defoo ko dinañ ci dikk mhm. problème bi fan la démarré dégg naa sa mbokk nga dugaloon ca list ba boolewuñ ko ca moo tax nga mer di wax la ngay wax yooyu yëpp dinañ ci ñëw incha allah bu ci xajee sañ ji li def na ci àdduna ci ci mbir yi. Mm-hmm. allah waaye ñu may ma ko rek nga nga tënkal ma rek ci ñaar wala ñeenti minutes. Mm-hmm. maanaam lu tax nitu daara yi tekkiwuñu dara maanaam daal yéen bu ngeen jàngi alxuraan ba mokkal dem jàngi xam-xam seen fonction mooy toog ca mbaar ma di jàngale xanaa da ngeen amul yeneen xam lu tax siriñ daara yee dellu ginnaaw lu tax ngeen dëkkee jàngale kese lu dul leneen daal lii bëgg naa koo xam abu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wa ma bikum min nicmatin fa min allah maa ngi nuyu waa plateau bi yëpp di am kontaan ak mbégte ci teewaay bi fii mm-hmm. waaye tamit di am cawarte lool ci mm-hmm. laaj bi nga ma laaj Shuayb mm-hmm. mën naa ne Sénégal ndongo daara yi ci boppam ñoo yor réew mi. Hmm? waaw parce que premièrement borom rajo bi ndongo daara la. waaw El Hadj Sylla Mine waaw. El Hadj Sylla Mine daara la. Hmm. benn ngi noonu. Hmm. waaye milliardaires yi. man dama ne dama ne dama ne milliardaire u Sénégal yëpp ay ndonga daara lañ. demal Sandaga fii. demal euh, kii Mbuub nu mu tuddati. Euh, Serigne Mbuub waaye tamit. bala ma jàll sax mhm. dana am benn milliardaire daara mhm. bu ma sant gërëm ko ñaanal ko borom bi tabaraka wa taala ca la mu taxawal foofee ca Kaffrine milliardaire la milliardaire la xanaa état ci ginnaaw ah loola day xaw ma ca dara waaye daal xam naa ne moom baykat la <laughs> liggéeykat la eh. yaa ngi dégg lu tudd tudd muy eh, muy muy muy eh, waaye nu mu tuddati borom man waay waay waay waay ñëw sa xel waaw borom mhm. maa ngi koy nuyu boo demee Kaffrine mhm. dafa taxawal benn daara as ndaw as ndaw waaw ah. alaaji as ndaw borom ndukkumaan mhm. soo demee Kaffrine dafa taxawal benn daara boo xam ne daara jooju man gisuma ko Sénégal wax dëgg yàlla te maa ngi leen di ñaan yéen ñii waa Walfadjri ngeen dem foofu def fa reportage daara joo xam ne la fa nekk ci xale mat na ñaar téeméeri xale ci poosam lay génnee di leen dundal. moo leen di dundal moo leen di dundal waaye li ci gën a yéeme mooy ustaas yi àq bi mu leen jox. Mm-hmm. ustaas bu ci nekk sa appartement la la defal. appartement bi am na cuisine am na lépp looy soxla dafaa am. yaa ngi dégg boo bëggee takk soxna indi takkal soxna indi. yaa ngi dégg ustaas bu ci nekk nag jëndal na la ab jakarta boo xam ne pour say say course yi ngay soxla waaw ka nga xam ne moom la teg ca daara yi mu jiitu ko oto la ko jox. benn 4-4 bu tabarkalla la la ko jox. d'accord te kooku doomu daara la. te kooku doomu daara la kii ma lay wax doomu daara la de. Mhm. du doomu du doomu waa école bi de doomu daara la. dégg nga amin yaa rabbi. waaye waxuma la dara may mais surveillance yi ñi nga xam ne ñooy surveiller ci biir daara ji. Mhm. mat nañ 15. dafa am ñoo xam maanaam bu xale yi di nelaw ñoom ci biir xale yi la ñuy nekk di wër. dégg nga xale yi nag moom dégg naa kilim yi moom bu fekkee mu fay moom day day day day day aalu moom. clim bi moom bu xale yi di nelaw du fay. d'accord daara ji fa tabaaraka rahmaan. mais xam nga mais feñ ñu na sa ko nocci. waaw dañ fa dul seen waa daara. Mhm. yéen bu ñu leen gisee kurus kaala xalima rek lañ leen gis ngeen yor ko léegi lu tax fa ñu na sa ko noccee doomu daara yi duñ leen fa gis wala da ngeen a jàpp ni lii nga tudd rek mooy def réew. waaye xam nga doomu daara yi moom li may faral di wax rek mooy toujours dañ leen di jéem a nax. Hmm. te nax biit dafa yàgg te fi mu ne dafa jot nag ñu yeewu ci nax boobu. Hmm. maanaam jàpp doomu daara daal. mooy koo xam ne bu jàngee ba pare daal amul def ak dindi ci réew mi gëm-gëm boobu fi mu ne dafa génn ci bopp doomi daara yi. ku ko ci génne. ah waa mais xam nga tey mooy jàng rek ak yàgg ci Sénégal. Hmm. ak yàgg dund dem ba xam ne dañ lay nax maanaam kon mën naa ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo ko génne ci seen i bopp. ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo ko génnee ci seen bopp ñoo dem nag ba xam ne nag réew mii nag wax dëgg yàlla. comme ñii dañ ñoo wax leen toog leen ñu defar toog nañoo toog a toog a toog ba sonn te dara defarut dafa war nag fi mu ne nag waa daara ñëw toog defar te jàpp naa ne fi mu nekk nii nag Sénégal lu fi baax lu ne hmm. dama jàpp ne doomi daara yaa tax baax na li ëpp solo ci Sénégal tey hmm. ñi li ëpp solo ci Sénégal ñi ëpp solo ci suñu gëm-gëm ñun hmm. waa daara la d'accord jax na xam naa bu ñu nee bay jeexal dinaa laaj ci coowal penc mi actualité yi moo xam diggante Ousmane Sonko ak euh, président Macky Sall ak euh, yi ci xew yëpp léegi abu yow sa vidéo la ñu a gis. Mhm. ci réseaux sociaux yi muy wëndeelu. léegi lan moo sababoon nga jékki-jékki def loolu. Mhm. ci gannaaw bi nga xam ne sëriñ Abdou Samad Mbacké ñoo ngi koy nuyu ca Touba demoon na ca wetu sëñ Mountakha. Mhm. ni ko ka nga ma booleloon di président Macky Sall ànd nañ dem euh, ca Makkatal Mukarrama gannaaw bi jéggal na fukki sëriñ ci li nga xam ne mooy sëriñ daara yi ma leen jox gannaaw bi nee nga ñooñu génnuñu wax jooju fan nga ko teg. change bu premièrement li ma lay wax mooy gis nga dëkk bi di Sénégal. Hmm. dañoo bëri caaxaan. Sénégal waaw. Hmm. dafay réew moo xam ne caaxaan yi dafay bari. Hmm. te ñun ay nitu daara lañ. waruñoo xaj ci caaxaan. waruñoo xaj ci ay fo ay fo yu politique. daara moom incha allahu rabi man sama côté man. laa wax de. te xam naa ne bari naa ci ay morom. li feek man maa ngi dund man bañu ma ku ma tëj ngir daara man bañu ma ku ma ne ràpp ci kaso gi xam nga fan laay amee gàcce ñu tëj ma ci leneen lu dul daara mais pour xeexal daara rek ñu jàpp ma ne ràpp ci kaso gi loolu bañu ma ko problème bii ba mu commencé mhm. sëñ jiili def ojo ne képp koo xamante ne bii xam na mbokk mu ñu tëj mhm. ci kaso gi te muy sëriñ daara nañ ko wax mhm. ñu ne parce dafa sëñ Abdou Samad Mbacké yàlla na ko yàlla sunu borom dolli leer. te jàppale ko yàggal ko fi. parce que comme ni ma ko waxee. Mhm. ba mu toogee président mënoon na ko laaj leneen. Mhm. waaye daf ko laaj lu jëm ci njëriñu askan wi. Mhm. te njëriñu askan wi nag mooy liberté sëriñu daara yi ñu dellu ca daara yi yar xale yi. jàngal leen loolu mooy wax ko soxlaam. waaw mais ba mu ñëwee waxu ko soxlaam. léegi ba ba nga xamee ne nee na sëñ Abdou Samad ñaan na loolu Macky Sall. Euh, dama koo xaw ragal nag ma Macky Sall président Macky saal ah. dama koo xaw ragal de ndax day tëjaate. ah yow nee nga yow ragalu ragal. ma mu tëj ma ci daara. mais dama koo dama koo xaw a ragal comme day tëjaate. Ah. moo tax ànduma moom nag waaye ah. <laughs> dama ko fësal. waaw wax bu ko kenn yëg kenn yëgu aywa léegi bi nga xamee ne euh, nu mu tuddati. waaw Serigne def na audio boobu. Mhm. man ma jël ay tur jox ko. moom sëñ jiili mu yor moom sëñ jiili mi yor recensement bi ma jël ay tur jox ko. ñu toog ab diir ma woo ko sëñ jiili mu ne ah ma ne ko waaw xanaa sama gaañi moom dañoo bokkul ci ñi génn. sëñ jiili na ma kan la ma jox ko tur sa sëñ jiili na ma xaaral ma jël liste biñ ma jox. ne ma ña génn seen tura nga ca dëggal wax bi de. xaaral ma ma jël liste bi nga xam ne moom lañ ma jox ne ma ñi génn maanaam ñi génn jox nañ ma ab liste wan ma ñi génn. Mhm. mu daal di jël xool. ne ma nu tudd ma ne ko diw sàngam ak diw sàngam mu ne ma ñooñ génn nañ. mu wax la loolu mu ne ma ñooñ génn nañ. d'accord ma ne ko foo ko teg mu ne ma ñi seen turam ci liste bi. Mhm. ma ne ko ah mu ne ma waaw. Mhm. mu ne ma tey ngaa woote waat seen kër ma woote ñu ne ma génnul. ma taaxir lu tuuti ma ne ko sëñ jiili mu ne ah. man ne ko ñu toog ay fan ma waat ko man ko sëñ Jili mu naa ah, man a ko est-ce que am na ñu bëri ñu lay woo ñu mel ni man di la laaj lu mel ni lii ma lay laaj mu ne ma man kay affaire bi mu may bëgg a jaaxal. parce que ku ma woo rek su ma xoolee ci liste bi dinaa gis ne nee nañ génn na fekk génnul. d'accord ma ne ko sëñ Jili mu naa man ne ah, ko ay fan laa leen may bu ngeen génnul wax ci ma génn wax ci. parce que nag wax dëgg yàlla. occasion bii duñ ko bàyyi mu jàll sañ daara yi dañoo war génn ci kaso gi dem seen daara yi jàngale ji. Mhm. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. parce que tamit kuy kuy liggéey ku nekk da nga juum ci liggéey bi. am na ñoo xam ne ay dóoru tërgëñ lañ leen jàppeek mhm. am na ñoo xam ne leneen lañ leen jàppee am na ñoo xamante ne bi ay accident yoo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. maanaam gumba ku ko saraxul war koo mën a bàyyeeg alalam. ñenn ñi ay discours ci wàllu réew mi. waaw ñenn ñi ay discours surtout kii ma lay wax. nga xam ne foofu tamit dinaa fa taxaw tuuti. am na ci koo xamante ne bi fii may wax ak yow nii mhm. soxnaam dafa nekk ci ay fitna barki démb laa ko doon defal vidéo man mi pour ñu jàppale soxnaam ndeysaan wallaahi ci ñi doon défendre Ousmane Sonko la bokk mhm. dégg nga mhm. wax na xalaatam ci réew mi ñu jàpp ko yóbbu ko ca kaso parcelle waaw waaw fii may wax ak yow nii may wax ak yow nii soxnaam dafa daf ko bàyyi woon ëmb mi ngi toll ci am doom yaa ngi dégg mu metti lool ci moom defal naa ko fi vidéo vidéo ba lu ma ca déggul amul mhm. am na ca ñoo xam ne xëy na ñi patriotes yi mhm. ñu ngi naan euh, naa tudd turam naa wax mu leer ma ne leen ma ne du ma wax mu leer ku ma ku ko mën a dimbale daal nga dimbale ko ku ma ku ko kiil boo ma woowee téléphone ma leeral la d'accord yaa ngi dégg d'accord léegi bu ko defee foofu tamit ma demaat ci affaire u sëñ waaw mooy yow nga leen may naa leen ay fan bu ngeen leen ma génn def vidéo pour wane ni sëriñ daara yi génnuñu sëñ jiiri waaw loolu de moom loolu de moom wax dëgg yàlla jar na ko mhm. parce que nag affaire baa ngi bëgg ëpp loxo ñu la mhm. ma sëñ jiiri wax parce man képp ku ma woo ñi ma ñiñ bind fii ne génn nañ ñëpp woo nañ ma laaj ma ma xool leen ñu gis nañ seen tur a ngi fi te génnuñu. waaw yaa ngi dégg. waaw ba ma toppee mbir mi waxtaan ci seen jiili ba mu ba mu wóor seen jiili na ko moom xamu ci ku génn te ñi ko woo yépp di ko wax seeni mbokk génnuñu ma génn nag ma def sama vidéo. Mhm. man képp ku ma xam-xam ne ci défendre sëriñ daara yi ak luy jëme daara ci kaw ca kanam ca loolu laa ne man képp ku ma xam ci loolu laa waaw vidéo ba la ma ca wax weesuwul nuyoo xamle ne mbokki sëriñ daara yi nga xam ne jotoon nañoo def déclaration bay gërëm président Macky Sall ngir ne bàyyi na leen bàyyiwuñ kenn kenn lañ bàyyiwul d'accord lii la kenn lañ bàyyiwul d'accord am na ñoo xam ne nag xëy na man dama gis ne bon génn nañ di ma tontu man dama gis ne sax am na ñoo xam ne dañ may tontu parce que xëy na ni affaire bi siiwee jàpp nañ ne damay jëm a yàq ndamu sëñ Abdou Samad Ah, déedéet sëñ Abdou saman am na ndamam ba pare ndam la ah, weesu sëñ Abdou Samad def na li mu def na li ko war waaw def na li ko war mhm. léegi nag li ci des mooy ñam ko seqal ci seen bopp lu tax ñuy def lii ci lan lañ ko teg mhm. yaa ngi génnewoo leen ba noppi bëgg ñoo def ba non man pré sëriñu daara yi génn ba noppi def def vid def vidéo di di di gërëm non ah, loolu rafetul quoi maanaam su ma la déggee dañoo waroon leerlu xam nga waa ji mi ngi naan in jaakum faasiqum bi naba in fatabayyanu man xamuñ ma ci fisq xam nga ñan nañ xam ci fisq mooy ñi nga xam ne dañuy waxta duñ def waaw aaya boobu yow moomoo ko woon moom waaw parce que loolu aaya fu sax yi kay xam nañ leen jaakum faas man bi nawet moom loolu warul woon a dëkk foofu léegi bala après plateau bi ñoom ñëw seen i question kon pour leeral sëñ Abdou Samad maanaam am na mérite am na dem na ci président Macky Sall ñu bari ñuy mel ni man bu ñu demoon ci wetu président Sall leneen lañ fay wax mu dem hmm. wax fa soxla def li waroon def joxe ay liste ay ñu ne ko bàyyi nañ leen kon moom loolu la mënoon a wax léegi kon hmm. ñi génnaat nag ni bàyyiwuñ leen léegi loolu laa bëgg a xam ci luñ ko teg ak fan lañ ko teg parce que nee na bàyyi nañu leen boog laa bëgg wax bi nga defee sa vidéo ah. génnaat na nee na bàyyi nañu leen kan moo génnaat ne bàyyi nañu leen ah liñ teg ci jomet ci wala fajir déggoo waaw mooy mooy ki sant Jóob mooy ki sant Jóob ñëw weddi ma waaw am na ko mais dégg ngeen la wax keroog bi ngeen koy bi ngeen koy jàngat yow ak saa mhm. dégg nga la saa wax mhm. saa nee na leen kii dafa mel daa ñëw sax di dëggal li li abu jandal wax uh-huh. te dëggal gi mooy lan mooy moom ñam wax ne bàyyi nañ leen bokkul ak liste bi ñu leen joxoon waaye list bi ñu delloo tamit ñooñu kenn bàyyiwu leen kon léegi affaire wu naxante boobu lan la ñu naan ñu ay ña doon wàccee kaamil mais wàcceekatu kaamil kii jàng ki nekk ci bitig bi sax mën na wàccee kaamil mën nañ la tëj nga nekk jàngkatu alxuraan dem ca bitig te jaaykatu bitig nga nga dem foofu bu ñu ne wàccee kaamil nga ñu naan wàcceekatu kaamil la lañ wàcce woon d'accord aywa kon gars yi ku ci am euh, question. waaw euh, di ko gërëm bu baax ah, waxtaan bi. Mm-hmm. Mm-hmm. comme li mu wax rek ci sëñ Abdou Samad bu ñu bari meloon ni moom ñëpp génn. dëgg la mm-hmm. jéego bu mu ci def. bu ko ñeneen defoon ñëpp génn parce que taxawaayam te def na ay effet nag parce que moo waral coow li nii. parce que gars yi yàgg nañ ci kaso bi te kenn mu mus see wax. kon moom loolu mu ne bu mu ko bàyyi na ci taxaw waaye yow li nga ne dala ci encouragé mais man fi ma amee problème da nga ne sànq euh, bàyyi noonu am na ñoo xam ne ñu ngi des ci kaso bi nga wax ni ay délit d'opinion lañ def li ñu wax ak wala kun dóor gaañ ko mais bul fàtte ni tamit ci ñaan gi xam naa ni dafa amoon gàntu gu amoon mais kilifa du gàntu moroomu kilifa am ci pénc mooy ñi nu ñi tuddee wàllu kirim maanaam faat bakkan wala viol ñooñu mun ñu tëb rek bàyyi leen loolu aussi tamit bokkoon na ci xeetu gàntu gi mais beneen bi ci topp sànq. da nga est-ce que am ku ci faat. non xam na bu nekk crime moom crime ñuy laale ci faat bakkan ak viol bi ñuy gracier dañoo bi ñu ah. bi ñu leen ñaanee dañu wax ne képp koo xamante ne bi defuloo crime ah. loolu la ñu waxoon yaa ngi dégg mhm. képp koo xam dafoo crime crime nag mooy lu mel ni viol mhm. wala lu mel ni rey nit mhm. su boobaa moom doo ci bokk loolu la waxoon ñu nangul leen ko nangu bu rafet waaye ñi nga xam joxe seen moom joxewu leen koo xam ni def na loolu déedéet. waaw kon kañ. voilà ba tey léegi nag respecté woon nañ norme yi. Ah. Hmm. Hmm. léegi sànq da nga ne am na oustaz boo xam ne ni nga def foofu rafetlu naa ko ñu mën a dimbali nag nañ dimbali waaye aussi tamit jël ab photo jàmbur naan diw la ci kilifa kilifa kenn du ko weer ku mën na def ku mënul rek bàyyi mais jarul ñu la ciy jéem a dugal ci yoo xam ne gis ku bu bu yemoon ci jàngale alxuraanam kon nangam waaye boobu damay yaakaar ne waa boor bee la <laughs> day ruube la mais tey li nga tudd ci milliard ci daara mm-hmm. ba tudd ci sànq koo joxe exemple bu rafet. Ah. mais tey ji est-ce que daara waroon na fexe waroon na toll foo xam ne nitam day am jafe-jafe mu nekk ci kaso soxnaam imbi nga koy ñaanal ci internet bi. Mhm. milliardu daara yooyu est-ce que njariñam aussi euh, bari na. man moom parce que daara bari na milliard mais milliard est-ce que mi ngi def effet xale yaa ngi yelwaan ci mbedd mi nitu daara yi macha bari na ci ñu tumuraange sëñ bi man moom xam naa ne. Hmm. su may ñëw ci plateau yi ba moytu léegi tey gars yi mere ma. waaw parce que man sama sama xalaat laay wax li ma ko sentir gis nga gis nga gis nga ñaar moo fi am hmm. ñaar moo fi am mooy njàngum tubaab mi hmm. ak njàngum diine ji hmm. diine ji nag am nañu ay kilifa tubaab bi it am nay kilifa waa diine ji ci seen jëmmi bopp nañu organiser wu gis nga bu yowmal xiyaamee tumuranke daara yi ci Sénégal yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala ndonga daara yi la koy laaj milliardaire ndonga daara yu tëdd ci ay milliards bañ koo financé ci daara yi ñoom la koy laaj man loolu laa gëm dégg nga suñu kilifa diine yi tamit lépp loo xam ne mën nañ ko danañ leen wormaal ci wax ji waaye lépp loo xam ne mën nañ ko am na ñu ciy def ci ñoom effort di tabax ay daara macha allah waaye man li ma gisoon mooy gën a organiser wu waat li ma gisoon mooy gën a organiser wu waat yaa ngi dégg jéem a xool nu ñuy def imam Alioune Badara Ndao benn bis wax na ko nee na ajjuma bu nekk bu ñu xooloon ñaata jullit ñoo nekk ci kii bi ajjuma ci ci Sénégal ajjuma bu ne kenn ku nekk joxe cent franc nee na loolu lijjanti na programme daara te su boobaa am nañ ah, waaw ku julli ci juma jumaa ju ne rek ñu ne kenn ku ne wala kenn ku nekk nga bind rek ana ana Touba ca kanam nañ taxawal daara ca kanam sëñ bi daara daara luy lijjanti problème am yomb na de parce que ñun su ñu soxla bëriwul de mm-hmm. ñun nañ lekk naan rek ñun nañ lekk rek li ci des yëpp garaawul xoolal gis nga bu ñu lekkee naan jàng nga may ñu jàmm képp koo xamante bi jàppale ñu nga bañu waaye xam nga yow jàppale woo daara ba noppi bëgg caa dugal sa loxo. Ah, jàppale woo leen di jàpp waa daara. ja jàpp jàppale woo ñu bëgg ñoo jàpp. loolu it mënta nekk waa daara it nañ xam leen na loolu it moom dëgg ju ma leen di wax la képp ku naan état bi na dugal loxoom ci daara. na dugal loxoom ci daara bu boobaa nag da ngay bàyyi organisation daara état yor ko ah. Mm-hmm. tamit waaw loolu it foog ñu nangu ko boo nangoo état dugal loxoom ci daara mm-hmm. da ngay nangu tamit état dugal organisation ci daara mm-hmm. waaye du question da ngay bàyyi noonu rek léegi man bon li ma doon laaj mooy euh, comme jamono ji nga xam ne daara euh, dañ koy jam léeg-léeg ci côté bu ne euh, ñu naan diw sëriñu daara diw sëriñu daara est-ce que du teg ay mbir yoo xam ni balaa nit di doom nga xam ni man awma sañ-sañu rek jóge fale ubbi daara mm-hmm. nga xam ni day am ay critères yoo xamante ni tamit war na mën a am même bu fekkente ni bi loolu mën ngeen ci exclure état parce que yéen a xam mbir yi mm-hmm. yéen ci seen jëm bopp loolu est-ce que tamit du ngeen koy faral def parce que léeg nga gis ñuy utiliser ay nit jëlee leen ay dëkk mm-hmm. indi leen te loolu yëpp bu ñëwaatee problème la buy dal ci yéen dañ naan ñu daara ba nekkoon fee fekk ne du sëriñu daara dafa importer ay xale indi leen di leen utiliser di leen yelwaan loo mm. problème yooyu est-ce que yéen tamit ci seen biir seen organisation yi du ngeen fexe xeex mbir yu mel noonu waaw mooy li ma wax rek mm-hmm. xam nga dëkk bi moom mm-hmm. dëkk la boo xam ne kenn ku ne yaa moom sa bopp mm-hmm. kilifa gi mooy état état boobu rek moo ñu mën a jàppale pour lii Sanjogo wax mën a nekk dégg nga état rek moo ci mën a jàpp waaye xam nga ne moos ma fekk benn waaye bu samp daaraam ci norme yu baaxul ma ñëw taxaw na ko na fi na fi na na na dañ. ngay civil moom. waaye sëñ bi loolu man mënuma ko. loolu état moo ko mën. Mhm. état moo ñu war a moom moom lañ war a àndal ci loolu mu jàppale ñu. gis nga moo tax gis nga état gis nga ma nag loolu bu ko état defee ngeen ni état day xeex. voilà foofu laa jëmoon. foofu laa jëmoon loolu tamit ñun suñu problème la. Mm. ñun waa Daara loolu suñu problème la. parce que gis nga am na yoo xamante ne bi état bi mi ngi koy def arrangement Daara la. mais ñoom duñ ko xam. kon ñi naan état day xeex daara kon fu ñu ko teg. voilà léegi nag état bi tamit xam nga beneen problème buy judduwaat foofu état bi tamit la mu war a taxawee da koo taxawee. état daa dem ba wóolootuñ ko. waa daara dañu wóolu voilà maanaam gis nga relation bi am relation bi am ci diggante xam nga xam nga ñun ñu ngi daan wax naan affaire bu njëkk bi ñu daan wax affaire métier daara. daara métier yi ñu fa a dugal gars yi ne waaw jàngu métier waaw jàngu métier gis nga man de su fekkoonte ne man la. Hmm. man de maa ngi ne ngéej ku ma mën a jàppale na ma jàppale sama daara am métier man bëgg naa fa ay métiers yu baree bari bëgg naa xale bu fa jógee mm. nekk mën mécanicien menuisier mm. xam nu ñuy defaree courant xam lépp man bëgg naa loolu ci sama daara. d'accord waaw loolu moom bëgg naa waxtu wi jeex na. wax la rek. waaw mais est que temps mën nga def nga mën mën nga def loolu yi. parce li kii wax ne jéego yi ndax wax lëg la xam nga fi mu toll am nga alxuraan koy jàngale. am na benn menuisier bu nekk à côté boo xam ne bi moom alxuraan am kii wut est-ce que essence am léeg-léeg nga am xale yooyu yóbbu ah. kii ba muy jàng muy ñëw di jàng si léegi bu xale ba kii maanaam di fa jàng moom muy ñëw nga koy jàngal ma wax la benn mbir gis nga man daara daf ma ñor waaw gis nga boo ñëwee sama sama daara cosaan li yalwaan la woon musuma yalwaan loo xale ba ma ko sama papa joxee laa laa arrêté yalwaan bi daara ji buñ ku fa dugg fi mu nekk ne xam nga lan ngay wax mm. da nga naan fii xanaa résidence la mm. yaakaar naa am na lu ma la ci wanoon ci vidéo macha allah alhamdulilah maa ngi sant yàlla foofu mm. waaye gis nga lii nga wax nii subaak ngoon guddeeg bëccëg ki lay dox waaw subaak ngoon guddeeg bëccëg ki lay dox fexe koo xam ne parce que mënumaa génne xale yi ñuy dem di jànge métier ci biti parce Sénégal mooy loolu daanaka atelier mo mécanicien atelier menuisier yu bari wax dëgg yàlla yenn saa yi nga gis fa ñoo xam ne daal wax dëgg yàlla dañu lay wàllu jikko waaye daal bu fekkoonte ne am nañ ku ñu mën a fekk si suñu daara ji loolu daal képp ku ma ci mën a jàppale daal maa ngi nii ku ma ci mën a jàppale daal maa ngi nii <laughs> asalaamaaleykum fi ah, ma bëggoon a tëjee daa mel ni kon mënatu cee xaj bëggoon laaj ci wàllu réew mi wax sa xalaat mais sukkaa anee na ma euh, jeex na tàkk waaw xam naa après dina fi ñëwaat en tout cas di ko gërëm bu baax di ko sant bokk na ci euh, sëriñu daara yi nga xam ni boo koy seetaan ci ay vidéo dafa am pédagogie bu bu am ci digganteem ak euh, benn complicité bu am ci digganteem ak ay xaleem te bokk na ci xale bu gën a gaaw a sol alxuraan mooy ki ñeme ki lay jàngal te moom boo koy seetaan xale yi muy jàngal complicité bu doy waar moo am see digganteem ak xale yi yàlla na ko yàlla taxaw te taxaw mbooleem jiitu daara yi abu ñu gërëm la baax dafa am benn xale bu ma ñaanal waaw nee na yàlla naa tàbbi ci kàmbu xaalis ma ne ko kon baa sama loxo bi du damm kenn ci sama xale yi <laughs> kenn ki ne ma yàlla na nga toog wéttal leen te lu ne la waxante ma macha allah xam naa ku ñuy topp ci réseaux sociaux yi da nga gis suñu nekkin ak moom macha allah. waaw jërëjëf yal na yàlla bàyyi ñoom amin ñu bokk lépp incha allah jërëjëf kon mi ngi noonu daara lañ doon waxtaane tey ak jafe-jafe yi ci yàlla na ko état dégg te mm-hmm. topp ko uh-huh. altine ak jàmm incha allahu rabbi abu ñu ngi lay sargal lu bare bari ndax nit ki bu amee cofeel ci ay xale rek xam ni xol bu set la ndax nekk ay xale dafa doy waar trop te duglu ku ne ngay gis xale bu ne ngay gis te lu tee di ko téye rek di ko encadré yàlla na yàlla bàyyi ak xale yi barke Seydina Muhammad yow di yàlla gën a may la xam-xam boo leen yore rafet na vraiment vraiment donc ñu dem régie daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Sa Ndiogou ak aadama Ndiaye bu Cheikh Bara Ndiaye ci fajum cosaan